li tàmbali jibaat ci mbirum Ousmane Sonko Adji saax ñoom ñaar ñooñee nga xam ne nag mbirum accusation de viol doxoon na seen diggante fan yi ñu weesu nag ki nga xam ne mooy journaliste bi di Babacar Touré mu ngi doon xamle nii eh, ki nga xam ne mooy aji saax dafa faqoon genn këram daw dem loole nag ki nga xam ne mooy conserne bi di Adji Raby Sarr dal dina koy weddi di xamle rek ni nekkul ne dafa faqoon waaye ay déménagement rek la nekke woon ndax mënatul dund ci jàmm te fépp fu mu dëkk nag ab dundam la ñuy menacé moom nag la mu xam li mooy ni ab citoyen la te am na droit dëkk fu ko neex déménager saa su ko neexee moom ajira bi Sarr daal di ciy dolli ne mënatul dëkk ci ab bërëb lu yàgg ndax saa suñ ko xàmmee rek tiitange moo koy jàpp ndax dafay jàpp rek ni dundam mën nañ ko faagaagal saa su ne moom nag mu xam ne ni mësul dëkk benn yoon ci kër ki nga xam ne mooy avocat di maître El Hadj Diouf comme ni ko ñu bëri doon lam-lamee dossier boobe nag nga xam ne dox na diggante aji Sarr ak leader bu Pastef di Ousmane Sonko mu mel ni mu ngi traîner ci loxoy justice ba tax sax ñaari concerné yi kenn ku ci ne di sàkku rek mbir mi gën a gaaw bu ko defee ñu mën leen létt wala ñu firi leen lu ëpp juróom-ñetti weer gannaaw plainte bi nga xam ne Adji Sarr déposé woon na ko ngir toppee ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko mbirum viol ñi nga xam ne nag ñooy avocat yu Ousmane Sonko jàpp rek ne mbir mi doxul benn yoon ba tax ñu daal di woon saisir ci aljuma benn fan ci weeru octobre atum 2021 ki nga xam ne mooy juge Abdoulaye Assane Thioune mi nga xam ne moo nekk ci deuxième cabinet bi nekk intérimaire bu juge bu premier cabinet bi nga xam ne moo génn àddina di Samba Sall ñoom avoca yi naka la ñu sàkku mooy rek ñu daal di gi li nga xam ne mooy contrôle judiciaire bi ñu gàll ci ndodd seen client di Ousmane Sonko waaye itam ñu fexe rek ba jébbal leen li nga xam ne yëpp mooy dossier bi bu ko defee ñu daal di xam la nekk ci biir. mu mel ni nag mbir moomee di dossier Ousmane Sonko Adji Sarr tàmbaleeti na dal di occuper actualité bi ci réewum Sénégal.